daje bi euh, donc daje bu am solo la parce que noo ngi waxtaan euh, pour euh, trouver des solutions yi nga xamni exploitation sable bi ming koy indi fi ci région de Dakar ak région de Thiès donc nous tudé ko atelier de concertation concertation avec exploitants et l'administration minière ak yenen administration yi nga xamni ñom tamit duñ ci am wal donc lolu mo

tay administration bi donc il faut que mu taxaw pour xool euh, autorisation yoy nu kay joxé et ensuite xool aussi ñu kay exploité est-ce que respecter nañu charge yi respecter nañu normes yi parce que wax nañ fi ay problème yu bari problème yi nga xamni ni duñu respecté horaire yi xaju guddi ngay dem wala mu am ay yeneen pollution wala exploitation bi jur yenen yeneen gàllankoor si nappe phréatique yi yooyu yëpp tax euh, aussi aussi euh, bu jexé donc un matériaux de substitution nous proposer sénégalais donc une administration responsable pour guisser les problèmes dafay woo acteurs yi ak ñu ko seqal pour nu waxtaan a solution durable que trouver pour problème problèmes amati. am matière. administration ñun duñu am direction contrôle et surveillance des opérations minières après nous avons une charte ni ni nañu war Mais les mais acteurs nous ñu constaté nous contourner euh, les textes. pour bañ a bañ a bañ a fay taxes yi taxes yooyu nag ni nga xam ni euh, ñoom euh, donc duñu utiliser yeneen voie pour nu mañ a nu bañ leen nu bañ a fay ñun buñ ko xayma estimé nañ ko presque ay cinquante millions par mois si année bi mu tourner aux environs de cinq cent millions moo tax waxtaan bi dana permettre effectivement ñoom nu comprendre enjeu yi xam ni recette yooyu recette bi sax à la limite demul si keesu mine mais keesu état bi la et donc day jëriñ Sénégal yëpp moom moo tax waxtaan bi am solo. voilà bon bi may def sama présentation maa ngi doon expliquer règles de sécurité yi nga xam ni promoteur de carrière et ak euh, ñi nga xam ne ñoo fa représenter administration war nañ ko war nañ ko jël parce que nous avons créé biñ ñëwee commencé liggéey bi au niveau de la direction des carrières di direction bu bees li ñu njëkk a def mooy dem sur le terrain xool ni ñuy liggéey mais constat bi def pratiquement boo xoolee ñoom normes de sécurité ne respect duñ ko parce que dañ ni la foog ngay sol casque foog ngay sol lunette une nga de sécurité pour éviter un accident donc euh, bi ñu def présentation bëggoon nañ waxtaan ak promoteurs yi ak ñi nga xam ni liggéey carrière pour sensibiliser pour que ñuy des mesures de sécurité pour éviter des cas d'accident voilà a un contenu local parce que cahier de charge bi daf ni euh, dañoo bëgg promoteur de carrière yi di euh, les sénégalais d'abord, préférence sénégalais local avant les jël mais quand même euh, boo xoolee carrière de sable pratiquement nous fay liggéey ñëpp c'est des sénégalais pratiquement c'est des sénégalais les 100% c'est local donc dans leen doom gën a rek pour ñu gën a voilà góorgóorlu ci aspect voilà emploi Thank you.